citoyen la comme citoyen yëpp mm, yokkiti courant bi ñun si ñun ñep la metti muy sama kër di sama kër jegeñaale di sama kër mbokk di sama kër dekkandor ak bokki Sénégal ñep ñep ñep man yëg ko bu baaxa baaxa baax ala kulli yàlla yëg ko bu baax waye di wax rek ne président de la république Sénégal yep a ngi génn na fexé ba lu ba ak ndegom bu mu ko rëcc yan nañu yàlla musal si ndëgg gu rëcc na président Macky Sall lu ak ndegom bu mu ko rëcc tey bu démé ba nga xamanteni lu mu waxoon sénégalais yépp lu ci ëpp ñu ji duñ ci tek suñu bëtt loolu ndegu gu rëcc la ndax asgor mom na lu né ba mu des wax luy dañ di ñaan mu délo ci xélam lépp lo xamné ne la yaangi tuddu légui ko nga xamné ne ñu ko japp euh, naka nga gi maris di wax ne sénégalais la comme sénégalais yépp ñun ñëpp nit ñi am nañ liberté dama am liberté wax lu wax euh, am wax lu ma ne wax su ma wax li ma li ma yëg moom am na liberté jàpp ne fii la ko war a mën a mën a exprimer woo mu dem fa kon mbir mi noonu la noonu na ko na ko jàppee noonu moom mooy ndey ji seex na tëddee njaaxanaay tey moom na xam ne moom mooy kilifa lépp loo xam ne dina am ju koy sën ndax kilifa moo war a yore koy sën di nga gis nit ku juum sànni lu baax di nga gis nit ku juum sànni nit koo xamante dina ñëw sànni lu bon te amantan pour wax leen laal sën lépp fay dase lu baax a ngi fa tey balaa ngay xam ne sën moo sën dafa baax sax kon président na yor ji koy sën bu yoree ji koy sën dana baax tey sën ngay dem jël sa suuf sa daal di dem yóbbu ca tool ba mu daal di sax ña gàncax gu baax a baax a baax a baax kon na yor ji koy sën ndax lu mosa bon rek ñu sànni ko fa na fexe yor ji ko jooju te dee njaaxanaay di jéggale tey jëlale di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawféex ala kulli yàlla ndax jàmmam mooy jàmmu Sénégal sunu constitution ala kulial moñu may euh, mo len moñu may ku ci nek nga am lo yek droit de révolte droit de euh, xama pour exprimer wu nga genn exprimer wax li la neex ala wax lu la nakari constitution bi moñu ko may tang am nga lu la neex am nga droit genn ne li moma neex nga fësal ko am nga lu la naqari li mo la neex li mo la naqari am nga droit genn fësal ko pour wax la ne am du am lu la droit bu la neex nga génn fësal ko Sénégal keroog ba mu demee 2002 euh, ba démé coupe du monde dem nañ ba buntu palais buntu palais ñepp taxaw ci euh, euh, ki giri yi tay lañ ko tay lañ buñ ko faté fàttee bànneex la won te pourtant lu ne xajon na ci nit ñi mënon nañu dugg ci biir dal di def ay yé ah yàlla yàlla maar de taal yàlla na buñ gis loolu. kon kooku buñ toogaatee gis kenen ko xamné amna lu ko naxari nañ xamné droit bi moko ko may. ñu daal di ko nangoo loolu nee naa daal nag tëgee tëddee njaaxanaay Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xarñaar te mu doxal li nga xam ne moom la war a doxal li fi jafe-jafe ñaan yàlla yàlla may ko gis-gis bu mu mën a dimbalee Sénégalais yi ci loolu ndax euh, Sénégalais yi sonn nañ lool sonn nañ lool dund bi métti na dund bi cher na jafe-jafe am na lu mënti am rek maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko tawféex defal ko képp koo xam ne mu ngi ànd ak moom defal ko képp koo xamante ni mu ngi ànd ak moom ndax nee naa la bu amee jàmm Sénégal yëpp am jàmm ala kulli haal. Euh, dernier mot bi rek. di gërëm euh, seen télé bi di leen sant di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla yàlla defal leen tawféex fépp fu ñuy dégg télévision yu mag yi yan na ngeen fa yegg bi yaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di ziar sama kàddu di ko tëjee di ñaanal képp koo xamante ni tey kilifa diine la fi ci dëkk bi muy murit di tijaan di xaadar foo mën di yeewoo ak gox boo mën di bokk ba ci ñi nga xam ne ñu ngi ci jàngo bi sax maa ngi ñaan yàlla yàlla defal leen tawfeex fu ñu mën di nekk te yàlla defal ñu tawfeex di leen nuyu di leen sant di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah